bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ni déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen jotaay mu tudd Al Bidaaya ngeen koy am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 julli ji tabarakallahu ma nga fële ca Jurbel ca njaboot ga yàlla na yàlla def fa barke ak tawfiq sutura ak teranga yokk la taxawaay yokk la sutura aar la tabarakallah def ci say poos daal ñoo ngi nuyu waa kër gi yëpp tabarakallahu di seg nuyoo bi ci loxol meer je di ko ñaanal barkeek dund di ndokkeel astu mbeen tabarkalaaw xam naa bi muy dem war nañu ànd ñun ñëpp tabarkalaaw gunge ko ba Jurbel ne maamam sa sët baa ngi nii tari na alquranul karim ndax seen maam ñoom ñu sant si la dafa nekkoon ca pénc ma ñuy séddale jukki ba kenn si dukk ca jukki keroog la jóge ci penc ma laxas daa dem ca daara ji ba mu del see tabarkàlla nekk ka kaa moon ca silla masila kaag ma moo tax bu nu toogee ba sëtam sët sëtaatam tabarakallahu assumbeen si la daal di tari téere bi gàcce ngalaama yàlla na usaas moom tam mokkal alxuraan taarix tabarakallahu ya ginnaaw nuyoo yi ak ziyaar yi nga xam ne ñi ci biir réew mi la ak ci bitim réew شباب كان للإسلام حلم طيبة يأرز الإيمان حبا ويش waaw waaw nee nañu sunu yonent ba moo wax ne ni jaan di delloo fa mu dëkk la imaan di delloo fële ca almadinatul munawara li muy tekki mooy incha allah sa yaati yawm sa yaati yawm noonu ko euh, almursidul kabir lil mustarshidina wal mustarshidaat sëriñ di ko waxe sa yaati yow <laughs> yal na ko yàlla yokk wér ñoo ngi ndokkeel mboolem koo xam ne kii yaa ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew jullit yëpp nga xam ne jeexal nañu liggéey bëri bi leen sunu borom subhanahu wa santoon ca yaa allaziina aamanu kutiba aleykum siyaamu ñëpp song ko ndeysaan kutiba aleykum siyaamu ñëpp song koor gi ndeysaan ba jeexal ko ci fan yii tabarakallahu sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax ga ak yërmande ga mënuñu awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar sëñ Mbàkke Sylla moo di koor fukk fa ñu njëkk yërmande la nan ci jàng yërmande di yërmante ndax yàlla yërëm na yeneen jour yi nga xam ne moo ci tege muy fukk yu ci digg bi yooyu maxfira la mooy sutura nanu suutural jàng sutura suturaalante ndax yàlla suturaal fukk yu mujj nag moom itqun minan naar itqun minan naar mooy sunu boroom mooy xool jaam yi niñ sonn ci koor gi las-las yi bi ndeysaan ñi bëgg galaas mënuñu ko am ñeen ña woore fu tàng ndeysaan ñenn ñenn woor nekk ca waañ wa ñenn ñi war a nekk ca waar wa rekk tabarakallahu ñot ñot ñot ñot ba fab koor gi teg ko fële daal di koy jeexal <laughs> sunu borom ne malaaka ñii ñëpp lay boole gracier leen waaw gracier leen malaaka ne ko mais diw moom bokkutoon mu ne da nga ma koo gën a xam laa ubaal yi ñëpp lay gracier waaye waaye yàlla nañ ci bokk waay ca liste ba amin noo gi yéen kon noo ngi ci ndokkeel ñëpp tabaarakallaahu ak képp koo xam ne ki yëkkati nga sa dara jox nit ci koor gi ñu tudde ko suukaru koor ñu tudde ko leneen ñu tudde ko leneen tabarkalaaw ñu tudd pañey koor lépp rek yàlla na ko yàlla def ci téere yi jëf yi ñu nga xam ne ñoo ko doon def ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne kii da ngaa fekk ko woor nga jox ko dogu mburu mbaab tàndarma mbaa kaasu café mbaa ñaari danki ceeb bu dem ndaw kundaa am nga tuyaabay kooram te du ci sa koor dara kon nag ñoo ngi ndokkeel al muslimuna min masariqil ardi magharibiha ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel tabarakallahu ñaan borom tabaaraka taala koor gaa ngi dem na koor gi dem na buy del siwaat yàlla ñu fi fekk waaye yàlla bu mu fi fekk corona koor gi yàlla na del siwaat fekk nu fi waaye yàlla bu mu fi fekk corona waxtu wi daw corona nga ñu lëkkal wit kenn xamul looy def waaw waxtu wi daw waxtu wi ren nag xam naa xaw naa yolomal waaye yàlla na fi dox yolomal ba faw waaw ndax docteur Ndiaye noppalu ndeysaan ah missile euh, monsieur le ministre noppalu Abdoulaye Diouf Sarr noppalu ndeysaan ñi ne ci santé ñëpp a leen yërëm xool leen ñaari at ngi nii ñaari at allahu akbar ñu ne ci rek li euh, Ebola sax melutoon nii mais nag waa leen góor am réew daal ko ca nekk dafa lay jiiteel dafa lay ñor man lam yahtama bi umaril muslimina fa laysa minhum waa leen góor kon ñu ngi leen di jaajëfal jaajëfal nag journaliste yi nga xam ne ñoom tam saa su nekk ñu ngi taataan corona fu mu toll ak naka la rajo yëpp di ko synchroniser ndeysaan waaye yàlla na fi corona jóg waaye ñuy wax naan deux ba mu yàgg ñu ne ñu ne benn ba mu yàgg ñu ne def nañ test deux mille personnes gisuñu kenn corona daal di ñibbi waaye. sunu conférence yëpp yàq na ko xajamal na ko tabarkal sunu conférence yëpp xel yëpp dem nañ ci conférence ñoom Pape Samb ba li nga xam ne moo daan am Gibraltar ndeysaan tant bi toll ni fekk cël ma xam mbàqal écran yi na ci biir ndeysaan ñëpp ñëw waaw <laughs> ndeysaan allahu akbar corona daal mu ngi noonu rek loo koy bëgg wax rek xeeb ko tabarkàlla waaye nag nañ continuer takk suñuy masque rek di continuer raxasu rek di continuer dandante rek waaw di continuer dandante rek muy gën di wàññi ko rek yal na fi jóg ba faw noo ngi ndokkeel ilimaan yi nga xam ne ñoo jiite nit ñi wàññeeku jàkkaarloog ñoom xutba seen xutba yu rëy yi tey tabarakallahu li yuqbala al bayu minna wa li yaxya banul islaami kiram di ndokkeel mboolem mi nga xam ne ñooy ilimaan yi kon ak ustaas notable yeeg sef de quartier yi politiciens yeeg sëriñ ci ñépp ñu ngi leen di ndokkeel waaw waaw xale yi nee nañ yow bu bëgg rek na ñëw jël seen ruux yi waaye ku jël seen ruux jël nga ko ruuxu poson loolu lañuy wax ni ci way wi بدو عيني nañ koor gi jeex na isan waaye ku woor fan alayhi salaam nee na gungeel weer wi weeru koor duñ ko gàttandu waaye dañ koy gunge nuñ koy gunge juróom benn fan ngay wooraat juróom benni fan bu la neexee ci fukk yu njëkk yi ci kori bi bu la neexee yi ci digg ba bu la neexee yi fin ba moom daal na nekk ci digg bi rek bu la neexee nga woor ñaar nopp noppalu wooraat ñaar nopp noppalu wooraat ñaar mu jeex waaw boobu moo gën a arrangé ndaw ku ndaay waaye daal ku woor weeru koor wi muy fanweeri fan fanweeri fan fan bu fan bu nañu def ko fukk trois cent jours ngay am ba ci tegee six jours calculer daal di am soixante muy trois cent soixante jours loo ci teg rek tabarkal maanaam li ngi tekki mooy woor nga at mi yëpp waaw lu am solo la su fekkee ne jigéen la joo xam ne ji dafa amoon bor ci koor gi ba noppi bëgg gunge su ko mënee day gunge ba noppi su noppaloo fay su ko mënut mu yéenee fay gungewaale رفعتم باعتزاز لواء الأمة فوق البنود bi nu noppee yaakaar naa joxe nañ muddi koor yi kenn ku nekk ci ñun joxe na muddi kooram ñu joxeegul ndax dañoo amut yàlla nañ am luñ joxe ndax muddi koor du wàcc nit ki tuula xayaatihi li fekk yaa ngi dund rek tabarkal loo am def ci baa ngay matal yàlla na ñëpp matal yàlla na jamono neex ba bu ñëwatee ñëpp mën a génn mu di koor qalban tahajjaraka alhabibi quduhu warjumu kullal yamu kon xaaj Mbàkke ñu ngi leen ndokkeel baax a baax ci li nga xam ne mooy korite wi eh, macha allah dem ca njaboot ga wari fa wàññiwul dara tabarakallahu Oustaz alin Mbaye ñoo ngi leen ndokkeel ci ni ngay doxale bu ñu nekkee ci koor macha allah eh, rek macha allah jërëjëf amuloo morom بني قوم اضربوا في كل شبر به أسطورة الشعب الحقودي أحيل ليلها المسلوق نارا يجيب سعيرها كل القيود بني قوم اضربوا في كل شبر به أسطورة الشعب الحقودي أحيل ليلها المسحوق نارا يجيب سعيرها كل القيود بني قوم القوم اضربوا في كل شبر به أسطورة الشعب الحقودي أحيلوا ليلها المسحوق نارا يذيب سعيرها كل القيود وعلن قور وعلن قور خلي تبارك الله دم لا تبال رصاص الجبن أو صنف الجنود فإن الأرض تنبت كل حين وليدا شامخا كابن الوليد وذوق البن تحجرت الحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا قلبا كحجرة الحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا روحي تضللكم جميعا فما عاشت ترفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه mbokk yi kon sunu jotaay sunu jenn doom ju nekk ca cene ba ñu ko wax Muhammad Abu Taha ibnu as-sadiq alxanuun Oustaz Alioune Guèye rahmatullahi alayhi wa radi anhu Oustaz Mouhamed Guèye daan def bu nu waree ca ëllëg sañu dem yendu ji cene ba mu nekkoon fi caar yu azir ñu fekk ko fa menn at mu ne danoo bëgg bu nuy ñëw ñu jàngatal ko ku woor ba noppi yan impact la koor gi war a def ci yow loolu la santoon keroog athaaru siyaami ala saaim yan impact la koor gi war a def ci nit ki bëgg naa ko làkk ci français eh, mais <laughs> mu noonu waaye daal wala mu laa ko leen ko ci anglais athaaru siyaami ala saayim waaw xam naa bu ma wàccee professeur jàpp sama nopp ne ma loolu ma war nga koo man ndeysaan yàlla mu yàlla yërëm ملام البشرية مهما عشنا كالغرباء نتجرع bi ñuy dem ca jataay ba fekk fa sëriñ Ablaye Xuma ak sunu taalibe eh, soxna Kumba Jóob ak benn mbokk mu baax mu na ci koñ ba fab fab euh, maanaam euh, atelier tailleur ba nu ko <laughs> waaw ñu fekk fa sunu doom ndeysaan euh, coro coro juuf yal na yàlla mottali ñu toog ca waxtaan wa ak imam sëy tabarkalla ñu indi waxtaan wi waxtaanal ko sunu doom jooju di al ustaas Muhammad Alin Guèye Abu Taha nga xam ne fi ne mooy mudiru daaril arqam ibn Aba ca sunu mbokk mu ndeysaan Cheikh Ahmad Tidiane Seck al xalifa yal na yàlla yokk tawfiix xalifa bu bees bi tabarkàlla bi nga xam ne jalasa fi xilaafati ker ba ñëwee bi ñuy introduire jataay ba dana waxoon ne sunu borom dafa jàngale koor sunu boroom dafa dafa santaane koor ngeen baal ma bi mu santaanee koor ni njëkk ma leen koo sant nag santoon naa ko ñu leen mag jiitu woon leen fi lañ ca def day su ma sañoon ngeen def lu ko ëpp lañ ci def ci jom su ma sañoon ngeen def ci jom ju ko ëpp loolu la sunu borom wax suñ mbakk mu ne ñu koor nag yàggut waaw xoole ker bi ñu toogee fi mag suñ mbakk rek naan ginnaaw suba la ñuy um fi ne koor gi war nañu ginnaaw kooru l'an deux mille vingt deux moo gën a jege l'an deux mille vingt et un hmm? waaw ndax l'an deux mille vingt et un dootu ñëw mukk l'an deux mille vingt deux mooy moo ne suñu kanam yàlla nañ ci àgg te weesu ko. ñoo ko oustaz Ahmed Dame Ndiaye <laughs> amiin waaw nee ñaan googu di am na solo lool àgg ca te weesu ko mu ne ma ne ko xaa mu ni wii ak googu am na solo waaw kon yàlla nañ ca àgg te weesu ko tubarkàlla ñun ñëpp nag nu àgg ci te weesu ko ndeysaan suñu borom ne koor yàggut ndeysaan loolu la ñu wax koor yàggut muñ leen rek lee mu jeex dégg ngeen ndeysaan ci waaw koor yàggut xoole bi naan koor gi koor gi rek léegi dem na bu yàgg ajaaratana maa faata laysa yaubu wa maa huwa atin fi zamani qaribu moom la Umarul Xaysi waxoon ndéegam la ndeysaan kër bañ jëmee Anqara ci Turki ajaaratana maa faata laysa yaubu wa maa huwa atin fi zamani qaribu ndeysaan mu ne ko xarit sama xarit sama mu ne ah mu ne ko lii ñëw soriwut li weesoo sori kon nag koor yàggut ñu ne waaw mu ne li mu yàgg yàggat sax ku tukk ci yéen lebal naa la koor ku feebar lebal naa la ki tukk su ñibbisee fay ki feebar bu wéree fay ñu nga xam ne nag ñoom mënuñu ko buñ tukkee buñ tukkiwut mënuñu ko maa ngi leen di sant ñu joxal ma miskin yi handicapé yeeg yalwaankat yi ñu joxal ma leen lu ñu ndogoo la yàlla yaa baax waaw mënu na ne ku woor ku man da def ku mënut na nga def waxul loolu de mu ne ku tukki baal naa la ku feebar baal naa la bu ki tukki bu ñibbisee fay bu koor gi jeexee ki feebar bu wéree fay bu koor gi jeexee nga xam ne nag moom bu tukkee bu tukki daf koo mënut mu mu natt lu mu jox miskin yi taamu miskin deux kilos ceeb par jour wala mille francs maximum par jour bu ko ëppee mu gën fa mën tatawaa xayran moo tax mbokk mi daf maa woo ndeysaan ne ma muddu koor ñaata la ma ne ko nee nañu day ku joxe mille francs wàcc nga mu ne ma waaw ndax am na nit sañ na caa teg dara ma ne ko alxuraan boo ca demee ci aaya 184 ci suurat al baqara sunu borom da ko wax ba noppi ne fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la mu ne ma luy loolu mu ne ko mooy comme neexoon nga joxe mille francs rek mu daal di ndeysaan kabar ni ma allahu akbar mën ne ko lu xew mu ne ma 10 000 laa calculé woon jeex na mu ma 10 000 laa calculé woon par bopp <laughs> waaw waaw 10 000 waaw góor xam na ci dëkk bi sax ñuy ko yàlla na la ñëpp dégg ndeysaan waaw waaye sunu borom nee na woor na gën in kuntum taalamuun bu ngeen xamee li xew mu ne mu ne ku man woor ku mënut jéem ku tële door a bàyyi subhaanahu wa taala ñun ñëpp ñu kontaan ci ni yàlla doxale mu ne des na des na gis ngeen weer wii ngeen ngeen génn ñu ne ko ah mu ne ci lañ wàcc alxuraan ñëpp fa tosu weer wii ngeen génn ci lañ wàcc alxuraan alxuraan nag bi mu ñëwee yii njariñ la indi hudan linnaasi wa bayyinaatin min al huda wal furqaan alxuraan daa ñëw nekk orienté si nit ñi leeral leen yoon ñu war a jaar tàqan teqantalal leen ba mu penc mi jàkk mu ne kon ku fekk ku fuy weer wi fekk nga fekke ko nanga ko woor daal del siwaat nag ne ku tukki wala bokk feebar baal naa la ba nga wér ku tukki baal naa la ba nga ñibbisi ñu ne ah mu ne waaw ndax da bëgguma ci yéen lu jafe lu yomb rekk la bëgg ci yéen te dama bëgg kenn ku nekk ab lima mat moo tax ku leb na fay ku sa lim matul kat sa dossier du dem naha mu waaw mu ne bëgg naa it bu ngeen demee ba ca korite wu ngeen bàkk ma nag wala tukabbirullah ngeen bàkk ma nag dégg ngeen ñu ne ko bu ñu àggee bàkk la bu ñu àggee ca kori ba bàkk la moo tax tey ci suba nga dégg ilimaan yëpp naan ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira waa subhaanallahi bukratan wa asila bu la masaana fekk asalem day san ci sama nijaay imaam Lamine Sarr waaw bu la masaana fekk asalem ci sama nijaay imaam Lamine Sarr wala mu fekk la liberté 6 ci oustaz Moustapha Niang bu nu kàbbaree rek حرمي فإننا نعبر الأيام نحو غد مستعذب مشرق الأنوار مبتد borom bi daal ne su ma su ma jaami laajee soriwuma jaam bi may laaj soriwuma ko ku ma woo naa la wuyu waaye danga may wooxe niñ ma war a wooxee ah waaw danga may wooxe miñ ma war a wooxe isa daan yàlla ku ko woo muyu la mais dafa am nuñ koy wooxe ndax daa am tur ak i melo waaw noo koy wooxe ah naa leen réponse bi yàlla daa am tur ak melo waaw noo koy wooxe da ngay xàmmee tur yi ak melo yi xàmmee tur yi al jalaal ak turul al azim al ismul azam ak al ismul jalaal walla wala wala waaw ñooñu ndeysaan eh, al xalifa sëriñ Mansour borom daara ji ca ña ko xamoon la bokk waaw ak sunu wajur wala nekkoon njare nekkoon njare Tuba Njaay Alaaji Njaga Njaay ñoom xamoon nañ xeeti tur yooyu yàlla boo koy woo da koy woo niñ ko war a wooxee am na koo xam ne fi ne nii ci penc mi soo ko wooxewut niñ ko war a wooxe mën naa am du yëg ne moom ngay woo mhm. ndax boo doon woo oustaz bay Mbaye naan ko booy yaakaar ma muuy la waaw xanaa ngeen kiyante lool ba nu sotite waaye bu ngeen tëlul ci yan yi sañoo ko wooxe loolu mu ne kon woo leen ma te gëm ne dinaa leen wuyu bu ñu jàngal koor mu dem ba ci biir mu yàgg mu ne am na lu ma leen tere woon ci koor may naa leen ko léegi mu suñ borom loolu tere woon mu ne mooy joxe ay joxe ay ci koor gi ci bëccëg bi nga xaw ma ci guddi gi dama leen koo tere woon léegi nag la ma leen tere woon tereetuma leen ko ndeysaan allahu akbar hmm? mu ne tereetuma leen ko xam naa sax nag bi ma ko teree téewal am na ñu doon joxeeg ay jigéen ñi am ñu doon jëlug ay waaye daal baal naa leen waaw léegi nag <laughs> mu ngi noonu bégal bégal leen leen tey wut doom nag ca ay ga tey wut doom ca ay ga bàyyi leen di joxe ay ba noppi di def pexe yu tax am yuy tee am doom bu leen ko def kat na ngeen lekk naan nag ba xam ne jant bi ba xam ne fajar gi feq na ngeen bàyyi lekk geeg naan geeg jege soxna yi waaw ilal lay li waaye mbokk yi nun la sunu borom wax ci koor bi mu nu koy rëddal ker ba may def introduction ca jataay boobu oustaz Mouhamed Gueye Abou Taha sàkk woon ci nun nu mel nii laa defoon introduction ba waaw nu mel nii <laughs> ndax defe ko nang ko defe woon munta nekk yàlla rek mooy def noonu waaw ah, kama bada'nakum awala mar awala marra awal awala al awala xalqin nu'idu ngeen baal ma loolu yàllaa ko mën waaye nun mënuñu ko waaw mënuñu mënewuñ ko noonu waaw waaw léegi nag ma ne ko ussaas mu ne ma naam ma ne ko bankal sa baaraam impact yi koor war a def ci nun suñu wooree ba noppi mooy seexlu alali jàmbur yi bankal sa baaraam wala nga noté ko ma madame Mbay Sala ak Ndey Faatu Jàllo ak sunu mbokk ba lee arfan inspecteur dégg naa sax soxna njinde nee na moom tam nañ ko boole ci ñu noté macha allah <laughs> waaw xam naa bi daal am na ñu ma jot ñoo ñu ngi noté waaw tabarkalla maa mbay tunkara ci Thiès semino moom tam mi ngi ci ñi noté waaw docteur Chiré Dieng moom tam jot naa message su mu nee na ma nga fële ca Kaolack waaye mi ngi noté kon noté leen impact bi koor di def ci aji woor ji ba ca jiitu mooy seexlu alali jàmbur yi seexlu alali jàmbur yi pour commentaire alali jàmbur mooy terrain yi nit ñi moom suuf yi nit ñi moom xar yeeg nag yeeg bëy yi ak xaalis yi alal li jàmbur yooyu alal li jàmbur yooyu sunu borom neena na ku woor impact bi koor njëkk def ci yow mooy da ngay seexlu alal li kon su boobaa ku la jox budget af of nag du la woo yaay njëkk dem soo liggéeyee ba jeexal cré yi du la woo yaay njëkk yaay njëkk a dem koor gi loolu lay def ci yow est-ce que def na ko c'est une question c'est une question yu yu ñu leen di laaj yéen ñëpp ko ci ne ci ñun ak yéen laaj bi mooy est-ce que bi ñu wooree ba noppi seexlu nañu alal jàmbur yi wala ni ngi continuer di lekk alal jàmbur yi waaw ñu jox la juróomi milliard nga teqi genn wàll milliard yóbbu foo ko jëme foo ko jëme nit na ko soldam doy njabootam di ci dund waaw ku ci nekk di ci dund loo ko may suux way saxe ca lu daganut yaa nga indil problème sa njaboot mën nañoo dem ba mu yàgg rek nga gis loolu naqari ci ñoom lu xew waaw doom ju dóor kurpañ baay ja lu xew mooy yi dëgganut ñu koy jox nit ñi ñuy lekk moo ki taxaw ci station bi yor oto bu jël super bu def ca gasoil ñooyam du dem fenn du dem fenn Afrique gépp Sénégal moo ci gën a bëri coow ci suuf Afrique gépp waaw laaj ko docteur Ndoye waaw Afrique gépp Sénégal moo ci gën a bari ñol-ñol ci suuf Sénégal nga gis jenn waa joo xam ne xam ne am na juróom fukki kër yu moom juróom fukki kër yoo xam ne kër gu ca nekk ay million lañ cay laaj te lu waay bari bari ay kër bu tëdd jotee ci kanam tuuti booy tëdd kër yépp luñ bari bari genn nga cay tëdd googa nga tëdd lu néeg yee bari bari benn néeg ngay jël néeg ba espace ba li mu yaatu yaatu li yaatu yaatu lu toll ni sa jëmm ji nga jël te doo ca nekk ñaari téeméeri at mukk ma wax la ko tey ñu jël la dugal la ci oto bu ñuul boobu ilaa yoof nga dem tëddi fa ngay tëdd étage yaa ngi la tiim ñi la tiim na ci étage yi dañuy wàcce ci étage yi dugg ci xabru yi waaye kenn du jóge ci xabru yéegaat ci étage yi ma wax la ko tey waaw looloo xam la woon Oustaz Alioune Mbaye barki démb waaw ca waxtaanam ba mu xam fa ba ñuy déglu xam wax jar naa xam de walaay jar naa xam loolooy tomb bi waaye sunu borom def ci wax lu am solo mooy wa tuddloo biha ilal xukkaam mooy jël yëfi jaambur jël avocat loolu li muy tekki mooy affaire bi du ay 300 ki 200 non non lii ay millions la wala ay hectares daal jël avocat mu lu ko fi jar gis nga ñool-ñool yi ci ci ci ci réew yi ko maanaam tey par exemple bu professeur ji bi ñëwoon càlle bëgg fa projet boo xam ne nangami hectare la man de keroog ma demee càlle bëgg fa daar ji ñu fa samp damaa dem ci borom dëkk bàyyi Moussa Nogay waaw yaayam lañ tuddee Nogay waaw maam Nogay lañ tudde sunu Nogay mii waaw <laughs> waaye bàyyi Moussa ndeysaan yal na ko yàlla yërëm moo doon borom dëkk ma ñëw ne ko dama fee bëgg day daara mu ne ma daara menn mu ne ko waaw mu ne ma kaañ dem ñu jiitu ba àgg mu ni ma fii li tàmbali fi ba fële lépp maa ko moom mën na ko waaw mu ne ma nattal mën na ko fii ba fii baax na pour daara ba ma fa demaatee dama bëggub tool dama woote réunion ne leen daara jaa ngi nii dama bëgg tool bu ci taq waaw magum dëkk jibi sàll mii ci fi tey ci seen tool yi bàyyi te doon sama nijaay ñu ne ma fii daal loo fi bëgg daggal lan laa bëgg a wax mooy ñii dem di yor ay projet ci ci àll bi yoog ñoom seen yooyu dëkk bi nga ñëw bu fekkee waxtaan ya leer na amuli intermédiaire danaa ñëw ci kanam koo wax ne lii laa bëgg ñu gis ci seen bopp muy seen yëfi bopp ñu bokk ca waaye nag lu nit new néew doole boo ko jaayee doole mu lànk لكنها رخيصة في سبيل رب الأرض والسماء ولكن ولكن متى ينفث رشاشك لهبا يصبغ وجه الشفق waaw gone yaa ngay maaj de tabarkala déglu leen leen ci maaj bi xandaqi qabri wa qabri xandaqi waa صامت لم ينطقي فمتايا waaw gone yi nañ gas nañ seen bàmmeel ba noppi est-ce que gone yi nañ gas nañ seen bàmmeel ba noppi moom daal li xew mooy Israël mënu leen rey rey rey rey bañ na ko yaa fi nekk ñoom ñëpp bu ñu faatoo ñoom gas nañ seen i ba noppi loolu la gone gi way nee na waaye nag suñ jaas yi ñu yor jaas yi waxagut waaye bés a ngi ñëw seen jaas yi wax ma ni mu yéen sas Aline Gueye sas Mouhamed Gueye mën na ko kon tomb bu njëkk baa ngoog mooy koor ba noppi da ngay seexlu alali jàmbur yi lépp loo muumut seexlu ko neel benn mën na ko ñaaral ba mooy yasalunaka anil ahilla ku woor ba noppi mbirum weer wi dalay ñor ku woor ba noppi mbirum weer wi dalay ñor lan weer wi séentu weer wi pour um séentu ko pour wori daf lay ñor ku woor ba noppi te weer wi séentu kook um ñoru la seetal sa bopp ci koor gi ndax impact bi mu war a def kon peut-être defu ko sunu réew mi ab diira ngi nii ñuy doxal ñuy doxal du ñu umandoo du ñu wareendoo lu tax dañoo nekk ci ñaari masala ku nekk ngank ci menn ah monsieur ministre monsieur le ministre de l'intérieur boo ci xëyoon ñaari xëy mu dañ boo ci xëyoon ñaari xëy mu dañ ñi la jiituwoon it buñ ci xëyoon ñaari xëy mu dañ waaw monsieur le monsieur le ministre de l'intérieur boo ci xëyoon ñaari xëy rekk mu daj maa la ko wax ba ci tege mooy jullit yi séq weer wi sëriñ séq taalibe yi buñ ci xëyam xëy mu dañ ndax hadis ba nee na sinfaani min ummati isaa salahu salaha naas wa isaa fasadu fasada naas ñu ne ko ñaan mu ne al umaraaw politiciens yi wal fuqahaaw ak sëriñ si ne bu sëriñ si defaree mu jag buñ defarut kenn mënta tax mu jag ma wax la ko tey dahaban yasbigu wajha shafaqi wa tabibin aadani fi illati waaw waaw docteur bi nee a seet si na ko mu nga tëdd ndeysaan parce que dañ koo xaañ ci bali Israël yi <laughs> cay gone yi la kon commission yi commission yi am na commission bu tudd commission nationale nun la tudd commission national pour séentu weer wi benn commission bu tudd coordination jullit yi waaw ñaari commission yi am na ko ci ku ci naxe am na ku ci naxe commission national lu ñu doyati kon commission coordination commission coordination lu ñu doyati kon commission national mais ñaari commission yi bu ci nekk dégg nga ni tudd commission nationale benn bi tudd coordination des musulmans ay am na lu xew waaye ñaari commission yi benn commission bi nee na fu weer yu feeñ ci àdduna si danañ um fu mu feeñ ñu wari loolu la benn commission bax benn commission bi nee na bu weer wi feeñee arabu saudi sun yoon nekku ca weer wi feeñee ci Afrique du Sud suñ yoon nekku ci ak Brésil seetal loolu commission bee yaatal ba mu yaatu commission bii xatal ba mu xat xatal ba mu xat mooy bu ñu nee bu feeñee arabu Saoudite suñu yoon nekku ci commission boobu day wax ne bu feeñee Côte d'Ivoire wala nangam ak nangam daal daal di xatal ba mu xat commission bee yaatal ba mu yaatu waaye mbokk yi ñaari commission yi toog leen woote leen ngeen daje waaw na commission nationale woote wala commission bee woote ñu daje foo xam ne bi kenn moomu ko ci ñoom ngeen waxtaan waaw ngeen waxtaan li nu gën a jig ñu jël ko bu fekkee commission bee nga xam ne mooy coordonné boobu ñu gën a jig nu teggi bii dem teggi bale bu fekkee bii nu gën a jig ñu teggi bee dem teg si bii loolu te loolu sëriñ si man nan cee taxaw waaye état nag bu ko neexoon xëy ci suba mu dañ te métti na de waaw métti na de a cheikh Mouhamad a cheikh euh, al Khalifa ndeysaan cheikh Sidil Muxtaar cheikh Sidil Muxtaar radiyallahu taala anhu moom day doxoon na ci jéego ba am solo te yàlla jàpp na ci jéego ba ba am barke ba fi nekk nii tariqa sàngam um nañu tey bee umaguñu yàlla ci mbaaxam jaaral na ko ci aw làmmiñam waaw yàlla na yàlla def lépp ci téere jëfam waaw loolu moom yàlla baaxe na ko ci mu des nag nan waxtaan nan waxtaan wa amrum shura baynahum ñaari commission ñëpp a koy jàngale kon nag nan ko def wa shawirhum fil amri kon nag nan ko def nanu diisoo nanu waxtaan bokk taabal ji tànn ci masala yi benn menn masala ixtilaaful mataali wala ñu tànn tawxidul mataali bi qur'aani bi qur'aani wa imaani wa takbiraati ixwaani bi qur'aani wa imaani wa takbiraati ixwaani ahuzzu al-kaafira al-jaani bi qur'aani waaw loolu lépp daal xuraan mën na ko awzul kaafiril jaani loolu daal xuraan mën na ko awzul kaafiril jaani bi quraani mën na ko noteel kon ñaaral bi mooy ku woor ba noppi weer wi daf lay yitteel ku woor ba noppi weer wi daf lay yitteel rikk waaye nañ ci jóg def ko programme ñaan yàlla kóor gu fekk na fi te bu ñëw fekk commission yi nekk benn ñu jël kenn teg ci bopp ba weer yu feeñ naag weer yu feeñu nag jërul kaalawu sëriñ Cheikh ma Tidiane si moo ko doon jàngale nee na netti li wax jàmbur jërul kaalawu kon weer yu feeñ na barab sàngam wax dëgg yàlla bu fekkee xaalis nekku ca nga xam ne moo indi enjeu bi ci nekk moom defe naa ne weer yu feeñ na rekk jërutoon yooyu nag bu bu bu cay million génnee nag hmm, <laughs> léegi tey nag poñante man caa am moom ma wax la ko tey bu ci bu ci million génnee note ngeen kon ku woor ba noppi day seexlu alal jàmbo yi muy benn ñaaral ba ku woor ba noppi séentu weer yi daf ko yittal muy ñaar ma jàll ci ñetteel bi léegi ci kanam incha allah ahuzul kafir aljani bi ñetteel bi mooy ku ba noppi day bàyyi intermédiaire hmm? waaw waaw ku woor ba noppi day bàyyi intermé luy intermédiaire li mu ci jublu mooy ñëw rajo Sud FM soxla Baye Umar Gueye jaaral ci secrétaire bi waaye ñu ne la non da ngay jaar ci Alassane Thioune parce que mooy bras droit nga ñëw ne Alassane dama bëggoon gis monsieur le mu am lu la laaj nga jox ko dara moo directeur sunu borom nee na mu yàqu looloo ko yàq penc mu yàqu looloo ko yàq hmm, waaw waaw monsieur l'ambassadeur Moussa Fall bu jamaatu bi Abdurahmaan dafay faral di wax ci waxtaanam yi nee na booy wut liggéey dañ laan demal nga xëy ñu xool ba xam mën nga am déet nee na France booy wut liggéey dañ lay laaj diplôme nee na Sénégal booy wut liggéey kenn du la laaj expérience kenn du la laaj diplôme li ñu lay laaj mooy koo xam li ñu lay laaj mooy koo xam loolu la sunu borom di tey tere gis nga fi nekk ni monsieur le président nee na yàlla na ko yàlla yokk wér dafa bëgg ay emploi yu baree baree bari gone yi liggéey macha allah wax na lim bëgg jël ci ay jàngalekat xëy na ci français ak arabe wax na lim bëgg jël ci fajkat wax na lim bëgg jël bëgg jël ci ay police yokk sunu police yi ndax suñ police yi am nay jamono dañoo jékki-jékki rajo ci lu baree baree baree bari booba lañ tàmbalee am insécurité ba fii nu toog daa wàññi koog tane naag rekk tabarkal la waaye lañ ca rajo woon dafa bari woon lool yaa xaw ma nag jëlaat nañ lu toll noonoom déet waaye loola moom ah mu ngi noonu de mu ngi noonu de Sénégal police yi dañoo war a baree baree bari gendarme yi baree baree bari police yi gendarme nag waruñu am soldu <laughs> damay damay joxe exemple nag boo xuma suba ñu xëy rek nangu seen soldu yi damay joxe exemple koo xam ne dangaa nekk télé bi di defar circulation bi bu fekkee oto boo jàpp la muy la ñuy tere mu def ko nga bindal ko contravention je pense que noonu la ñu ko waxee six mille francs mu fay ñu ne la yaa moom trois mille yi léegi tey doo nekk ci télé bi laaj ay 1000 francs ki nangam nangam ndax boo wàccee da nga xam ne yow lii nga liggéey yaa ko moom loolu am na solo di loolu am na solo waaye su fekkee weer day dee nga dem jaar kees ñu am lañ la jox lañ la jox boo ci jëndee saako ceeb jënd ci dellu na suukar jeexal léegi tey ku romb ci bu la tàllalewu 1000 nga jël mhm. léegi tey ku la tàllalewu 1000 nga jël kon nag borom bi nee na borom bi nee na nañu dindi intermédiaire yi ku soxlaati nit demal direct ma ne fi ne nii bu ñu woote woon concours bu ñu woote woon concours ci enseignant yi ñu bëgg jël gëmm nag ci fi nga bokk gëmm partie boo mën a bokk association boo mën a bokk daayir boo mën a bokk tariqa boo mën a bokk ñu teg la fële lu ñu laaj mooy xam-xam lañ lay laaj ndax dañu bëgg nga jàngale ji man yaakaar naa bu ñu ko defee noonu moo doon moo doon gën ñu recruter ndax bu ñu recruter léegi tey ñu joxe quota waaw daal ni professeur Jibi am nga quota wu soixante personnes professeur Jibi topp ay bokkam ña mën a jàng ak ña jàng ak ñëpp ña ko ci jege mu dugal leen ci biir ñu nekk ci gan kanam xale yi rek naan te pe ne me rek ci baat kàlla bu dee ci arabisant yi nga jël koo xam ne kii sa xarit la wala ñoom seen yooyu mu nekk ca kanam xale rek naan alam fa kayfa ndeysaan faala rabbuka qad xafaha bilhaybati llahu tarnu ilayhi biayni waalihatin sayadiju sawtu lummi awaahu هذا فتاك أجاب خالقه laqiya alladi qad kaana yahwaahu waaw xale bi nee na dañoo foy woon ñibbisi am ca ku ñëwut yaayam di leen laaj ana sama doom ja xale yi na ko bul jooy mukk bul jooy mukk sa doom jàng ci al aljanna ja mu ne sa doom jàng aljanna ndax Israël ko rey te ku dee ci xare danga shahid ndax seen suuf si ñu bëgg nangu seen jàmm ñi ñu leen xañ toxal leen ci seen kër yi seen bindaan yi ëpp leen sañ-sañ ci seen kër yi mu ne loolu la xale bi doon xeex ñu rey ko ca yaay mu ne ah, mu ne ko sa doom jàng aljanna ruuxa li mawla quli linnaasi bunayya baa ruuxa li mawla waladi qad kaana abiya almawtu ladayhi xayaa nee nañu xale ba daan ne ne xale yi daan ne yaayu ki faatu muñal sa doom ji róogim seerle la jaay boromam fahni'an lil huriya bi shahidin fahajada fahni'an lil huriya bi shahidin fahajada waaw nee nañu ak liberté amul prix lu ne jar na ko Mouhamad Gueye noté nga un ku ba noppi day seexlu alal jàmbur yi deux ku ba noppi seen weer bi daf ko yitteel trois ku ba noppi day moytu ay intermédiaire ñett ngoog note leen yéen ñu noté quatrième bi mooy ku ba noppi day nangoo kër kër yi ci la jëme diina ji wa xaatilu fi sabilillahi moo koy moo koy firndeel wa xaatilu fi sabilillah bu fekkoon impact bi koor war a def ca mooy kër kër ba dina ji taxaw kon lii xew Israël tey lii xew Palestine tey du ñem rek ci naqarlu ko dëgg la nag na am am am na njariñ waaye taxawaay taxawaay ba ko ëpp njariñ taxawaay ba mooy Israël dafa am najaay Palestine am na najaay waaye najaayu Israël moo gën a moo gën a euh, sawar najaayu Palestine najaayu Israël mooy Amérique najaayu Palestine mooy Saoudia nijaay jee moom la mu ngay taxawu jarbaat ba fu man di tooñ ci àdduna si waa du ne cell ndax nijaayam jeneen nijaay ji moom moom waxuma la dara waaye bu ñu fa yëngale dara ñu leen niin ay ci ngeen waaw ay ci ngeen ndeysaan ba far ñépp daw bokkuma ca tax ñu teggi seen tànk la xew Palestine metti na lool mais ci nag bëgg kuy jullit rawatina ci jeextalu weeru koor rawatina ci fukki fan yu mujj yi ñu ne dañuy dem def taraawix xiyaamu li ñu fekk leen fa di leen football di leen rey day sànn ba noppi naan suñu objectif lañ bëgg a atteindre ban objectif mooy jeexal jeexal Palestine ba mu jeex takk nangu seen suuf sa ndax bañ leen dalalee di pour cent lañ amoon léegi quatre-vingt-dix pour cent ya Israël ko moom léegi tuuti lan lan leen ca bàyyil te tuuti joj ñoo ngi cay bombardé ko def yëf ak métti ak métti ba demee suratul Israël la fa yàlla wax ak métti eh, xamt bii nu génn suma ma jumul sëñ Mbàkke mi ngi dajal dalal imaam Assane Seck yal ko yàlla yokk wér imaam Assane di ko wan dimbi foofa ak tey ak objectif yi nga xam ne moom la Israël bëgg ak fa mu leen jëme ak ni waa àdduna di seetaane ndeysaan hmm, waaw waaw fi ne bu bu fekkoon ñee ñuy noggatu ñoo kenn na ca def ab yëf ñu ne terroriste yi waaye tey lañ leen def lépp déggoo baat boobu déggoo baat boobu fekk ñun mu toog nga futbal ko fekk ñun mu toog nga dóor bal fekk kuy dox nga dóor bal jékki-jékki tiirey bal ci étage boo xam ne ay immeuble boo xam ne ay ñett ci dëkk mu daanu ci seen kaw ñu ngi tàmbalee compter mort yi démb ak tey ñu ngi tàmbalee te mort yi mbokk ni ci ñëpp wax wax naa ne al imam Khomeini dafa daan wax ne ñun julli buñ ku te bu ci ku nekk ngàbboon sa kurus buñ demee bu buñ ko buñ ko buñ ko bàccee suñ kurus yi mu nooy nepp mu ne wala ñun ñëpp ñu duy suñu satala yi buñ leen ko sottee ñu lab li muy tekki mooy niñ leen ëppee dafa ëpp niñ leen ëppee dafa ëpp waaye ceetaan mi dafa ëpp yal yàlla boole dimbali la lu ñëpp xam nag Serigne Saliou daan na wax ne lu ci waay wax mu doy. boobu mooy sama ñeenteelu tomb Saas Mouhamad Gueye Abou Taha mooy ku ba noppi day nangoo kër kër ci diini ji ak lu jëmale diini ji kanam. Ah. قلبك juróomeel bi ci impact yooyu nga xam ne moom la koor war def ci aji woor ji mooy ku ba noppi kunti nay nay seetal sa bopp woor day def ci nit ki tabe woor day jàngal nit ki tabe waaw su fekkoon ne fi ni pañe yi koor yi suukar yi koor yi yooyu daf nuy jàngal tabe waaye bu ñu ko politisé duñ ko def pour tabe dañ ko def pour politique mhm. waaye bu ñu ko defee pour jàng tabe bu ñuy wari muy mokk waaw bu ñu wari muy mokk muddi koor yi gis nga nim deme yaakaar naa ne ñëpp ko génne ñi amul rek xay na ndax léeg-léeg nit woola ne la awma lu ma génne nga ne ko wàccagu la yaa ko leb ba baa nga koy am loolu lañ wax kon ku war ba noppi day tabe ndax alayhi salaam nee na ab tab moom du dugaal jànn lu kër ya des des des moom doom kër moo moo ko rambaaj ñooyam ab rambaaj akub akub nay duñ dugg aljanna mukk jàng ngeen wal layli wa amma man baxila wastaxna la alquran wax wa kazaba bil xusna fa sanu yassiruhu lil usra waaw su borom nee na ku nay faatoo dee mu duma ko nga ne ah mu ne waaw lut c'est-à-dire <laughs> xam nga nay mooy tey bu directeur Baye Umar yal na ko yàlla yokk wér su ma joxoon deux milliards ne ma jëlal benn bi ñu ne séddale ko gaa yi ma bëgg jël benn ba noppi domp ci yooyu gaa yi fu ma ko teg waaw lay Mbaye Peex nee na na ko yàlla yokk wér lay Mbaye Peex nee na ku yàlla taaj bool bu ndaw jox la kudd daf laa lekk loo ñu ne ko dëgg la mu ne comme taaj bool yi daf laa séddale loo Mhm. nee na kum taaj booli daf laa séddaleloo waaw kum taaj booli daf laa séddaleloo mu nga la am solo la kon ku woor ba noppi kon continuer nay xamoo li nga def kon impact bi koor ji def bi ci tegi kon ci yi nga jot a muy 4 je pense que mënul la cinquième bi mooy ku woor ba noppi day tabe mbokk yi nan jàng ñun ñëpp tabe su mokkee rek tawarkal waaw dafa amoon góor gu ñuy wax alxaaji abdul asis aka tabe woon a cheikh muhammadul muxtada aka tabe woon sëriñ mbàkke soxna loo aka tabe woon sëriñ cheikh ahmad tidiane si aka woon su ma koy continuer lim lim bi dana sori waaye dama leen bëgg jox exemple yu ndaw ci tab tab yooyu ma ma ma junj waaw tab yooyu ma junj jamono yi sunu sunu mbokkum daara sunu mbaggum daara sëriñ Ablaye ja ba sini ko wane na ci jégub réeréer yi ndax yëkkati ñeenti téeméeri milliards million ngeen baal ma ñeenti téeméeri million foo ko jëmee mu ne ca daaraja ja isan ñeenti téeméeri million quatre cent millions foo ko jëmee mu ne ca daara ja isan allahu akbar yàlla na la yàlla defal wala saw fa yardaa jam waxoon abu abu uh, wu ñu waxoon abubakar yàlla na la ko defal ndax abubakar daa gis lu normalut mu normalisé ko sunu borom ne ko wala saw fa yardaa bu la say bokk dencee keroo ngay xam li li ma la dencal waaw yal na ko ko yàlla defal mook ñi mel ni ñoom nag ku lim jum waaw ñu jóge ci daara te yor ay affaire waaw ñoom Alioune Alioune Lo ñoom Serigne Mbuub ndeysaan ñoom eh, C3S waaw Serigne Cheikh ak ñoom ak ñoom Serigne Hadj Abdou Assis mi mën a mi mën a dafa tabe dafa xëy benn bés am gan guy ñëw ca moom di yalwaan si am nañu ne sax ab handicapé la waaye daal moom daloon yalwaan si alajab di fekk ko muy ndékki mu ne ko toogal ñu ndékki bi ñu laata noppi ci ndékki li am ko fa ak chèque enveloppe bu këkki ñaari suma ma cotalee dama wax enveloppe bu këkk yi ndax enveloppe bu weex du def xaalis <laughs> enveloppe bu weex yii tuute ci nekk moo tax <laughs> moo tax boo demee ci gàmm yeeg màggal yeeg yu demee ni siyaar yeeg yooyu gaa ñi bind ay enveloppe di di invité dañ ci yor lu bare bare bari ñi ba sonn laaj ko Assane Diop maa ngi laaj ko Cheikh Marème ca Càlle waaye bu dee enveloppe bu këkk yi moom yëgal na daraa ngi ci ndax enveloppe yu këkk yi mooy ne ci bureau patron yi enveloppe yu weex yi yéen li wax ni yéen ma ko gën a xam waaye daal waa ji indi enveloppe bu këkk yi def ci lu baax daal di koy jox xaaj Abdul Aziz mu téye ko ba moom ko jox ko waa ji doon jalwaan hmm? waaw waa ji ne sëñ bi doo xool li ci nekk loolu la ko wax ndeysaan doo xool li ci nekk waaw xam nga bu doon ñun dangay ngay xool li ci nekk bu dee lu bari nga dindi ca dix jox waaj ji xolam sedd dix mille waaye noonu la ko suñu ab di joxee rek waa ji ne ko doo xool li ci nekk ndeysaan mu ne ko jëru ko jëru ko de yow mi ko ci def xam nga li ci nekk ñaata la mu ne ko dëgg la mu ne ko yàlla mi la bind xam ne li ci nekk ñaata la mu ne ko dëgg la mu ne ko waa jii su àggee këram su ko bi dana xam ñaata la mu ne ko dëgg la mu ne ko man nag bu yamal xiyaamee su ma ko yàlla nangulee danaa xam ñaata la waa ji ne këpp waa këpp kon ku woor ba noppi royal ci loolu wa anfiqoo fi sabilillahi waaw keneen ki muy Cheikh Mouhamadul Muxtada waaw yi ngi ñu xam ci moom ci yooyu dafa bari waaye benn ngi nii bu ma bu ñaari fu may def yii rek man ci boobu la sama xel di gën a dem mooy kera ba ko kenn ci doomam yi ne oustaz diw dey moo nekk nii moo lay nuyu mu nuyoon te ba noppi mu ne ko waaye moom di fi mu nekk dafa am ay arrière ci luyaas te xam nga location Dakar beneen affaire la ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm nun ñuy luyee <laughs> yàlla nu yàlla yërëm nun ñuy luyee kenn mësu koo gis rek waaw Eh, ba ma luyee ndeysaan ca daara ja di fay un million trois cent par mois su ma ne kii fayu si luyaas bi rekk ma dugg ci néeg ba sàngu daal di daal di daal di siburu ndeysaan ne soxna soxna ami wañ <laughs> waññal ko bu dee waaye man du fekkee fi ñu koy waññee ndeysaan un million trois cent par mois merci chez, chez beaucoup. لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل bi ko kooku ne kii di daa am aria fi mu luwee ndax trois cent mille lay fay par weer ci kër gi amee na fi ñeenti weer jàpp juróom kon lay nu génn ko a cheikh Mouhamadul Moxtada ne ko ndax kër ga des na ko jaay mu ne ko waaw de danañ ko jaay kay gan njëg ngeen ca digg mu ne ko ah ne nañ da ko am juróom-ñetti million ñu jaay la ko mu ne jox ma sama saag bee ñu jox ko saag bi muñul ko espèce fukki million ne ko jënd ko ci juróom-ñett yi ñaari nga defar ko ci def nañ ko waqf mu néew لا تكن la koor bëgg a def ci ñi nga xam ne ñoo woor kenn ki mooy Serigne Mbacke Soxna Lo xam naa ko dem sax bugaan xam na <laughs> bugaan moom dégg naa bon si Mbacke Soxna rek mu xam xam naa ko dem xam na yéen ñi ko jege uppi leen ko te may ko ndox <laughs> فقط في كل يوم طيب الأركان مجموعها خمس keroog ba ma ko nettalee njare Touba Ndiaye ndeysaan ba Alaaji ba Alaaji Njaga Njaay ca njare Touba Ndiaye teg ca kàddoom ya راجع وكرر ما حفظت بلا ملل fekkoon du micro danaa wax lam ca tegoon بعض معاني راجع مع الأصحاب waaye loolu ku ko wax ci micro bi tabaarakallahu mën naa am للأخوات والإخوان waaye daal ndongal daa ñëw Sëñ Mbàkke Soxna Lo ne ko li ñuy sangoo ci kër gi mu tiim lay xoj sotti ndox mu ne ko sas mu ne ko waaw mu ne ko mooy yàqu waaw bëggoon ku ma ci jàppale ma jënd ko mu jox ko ñetti million waa ji xëm <laughs> waa xëm ne ko <laughs> waxumay million ne ko a ah, léegi loo wax mu ne ko sas bi moo yàqu mu ndaa mu ne ko defar ko ci seetetet <laughs> waa ji xam ndeysaan kenn mësu koo gis impact yooyu la koor gi bëgg a def ci ñun beneen bi ida xatamta farajian fi sabatin mutaasiyan bi nabiyika moo di sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum shirk alxafiyi wa sharrihi wathar min al ahqaar nga xam ne daan jël taxi taxi bu mu jël tabarakallah bu la faye boo xëyee daanaka mën a jëndub taxi ahad aw maraban id kullu cheyin mu jëloon ndeysaan ak netti mbokk ma daa ñëw ne ko man de sama xarit diw mu ne mu ne ko dafa am jafeñ-jafeñ ci lim doon liggéey lu doon liggéey mu ne ko nàngam na ko baax daa dugg ci biir wàññil ko fukki million jox ko ne ko demal nga jox ko mu dimbali koo ko waaja fay ay borom continuer liggéeyam ci jamono jooja kooku daal del si Serigne Cheikh ne ko ah, sama waa ji de wax dëgg yàlla moom fi ne sant na bu baax a baax ndax defar na nangam def na nangam def na nangam Serigne Cheikh wëññiwaat yeneen fukki million jox ko ne ko demal mu dimbali koo ko muy ñaar fukk. ba mu ko joxee yooyu nag mu ne ko jërëjëf léegi nag damaa bëgg sëñ bi sëñ Cheikh ne ko ne ko ëpp naa def ndeysaan gis bi mu naa mun ne ko ëpp naa def ndeysaan ndax bëggul ma ñu gise maag yow nga àgg suuf àgg suuf gi nag li muy tekk mooy nga nga bëgg a suufeel sa bopp ci kaw dama laa jox te yaa gën xaalis wala xadda karam naa bani aadama lañ dégg waaye kenn déggul wala xadda karam naa xaalis te it bokk ma ñu ne dama laa propagande ndax kenn propagande ab julit lahum bi shafaati alqurani yi ma jota netti li xam ngeen ci yu ëpp yi ma xam dama ko joxe misaal nii rek waaye li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam foofu ridwaani thumma salaatu ala ku nekk fa nga toll yaa ngay defee na nga toll wàllu góor kenn ku nekk na def ndax génn asaka mu dim koor ak koor gi ci boppam dafa nuy jàngal tamit muhammadin ma marra waqtun bil wara wa juróom benneel bi mbokk yi ci impact yi koor war def ci ñun mooy wa atimul xajja wal umrata lillah summa salaatu ala nabiyyil mustafa xayril ba noppi koor gi day def ci yow impact bu tudd aj màkka gu mat boobu mooy tomb bi ci mujj impact bi muy def ci yow mooy da ngay aj aj gu mat da ngay mën a umra umra gu mat te def ko nag ngir yàlla ah am na ñoo xam ne mën nañoo aj mais aj ga du am na ñoo xam ne mën nañoo umra ji te umra ga du waaye am na ñu mën a aji te yàlla taxut am na ñu mën a umra ji te yàlla taxut hmm? waaw waaw waaw waaw fi ne ku yóbbu woon nogay màkka nogay day dem màkka mais du aji du aji ndax bu nogay ajee màkk ba dellusi na meloon avant màkka dara du ci soppeeku hmm? waaw waaw journaliste yu jigéen yi ñu ci ajiwut wut màkk bariwul journaliste yu jigéen yi ñu ci aji màkk ñu ci aji wut màkk bariwul mais bokk de journalistes de beaucoup de femmes journalistes ba ñu ajee màkk bañ ganale leen ba noppi lañ teg muuraay ga fële mel ni ko ajee gutoon te loolu aj bëggu ko aj bëggut loolu aj yi mu bëgg mooy ko xam ne bu ñëwee dootu ko teggeeti waaw danay wax nag nun am nañ sens fii ñoo noog Baye Umar jigéen ñi fi jóge aji tàmbule ca Ndey Xadi Jóob jaar ci eh, Ndey Mareem Njaay jaar ci Soxna Isa ñooñu ak ñi mel ni ñoom ci fii musuma cee gis ku dem màkk dellu continuer def boppam neen gisuma ko ci ñoom merci félicitations et du loolu ab sagla la ci Sud FM seen rajo ab sag la ci ñun waaye ab sag la ci Baye Oumar Gueye mi nga xam ne tabaarkalla at mu jot mu ne kenn kaay nga dem waqti liqa wa nushi lil axawaati wal professeur Djibi Kara ba mu demee màkk ñu tase fa jooy dafa xëm ca Madina Munawara ne ma fii laay bàyyee nangam te def naa ko nangami yaat waaye fii laa koy bàyyee dootoo ko séen ci sama loxo yi bi wirdika fi qiyaamika bidduja fal laylu fihi lataa'ifu lmannaani kon tabaarakallahu impact yooyu la koor bëgg a def bi ci mujj kon ma ne da ngay mën a aj aj gu mat da ngay mën a umra umra gu mat lillaahi ngir yàlla حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتلاوة jërëjëf jëf caan bi si def seen rajo jaajëfal Alaaji Sëriñ Mbàkke si la di ko ñaanal tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara شرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضغان لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء di jaajëfal mboolem koo xam ne ki yaa ngi ànd ak ñun jotaay bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mutatayiban bittibi warrayxaani wa xudi siwaaka maa alqurunfuli fi famik mutanadifan li xalawati kon dañu yëkkati jotaay bi fii tabarakallahu ni ko sëñ Mbàkke daan waxee yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara